dalleen ak jàmm olof njaay dina faral di wax ne lu tëgg tas diggante bi yëngu jamono ji ba tas nar cee am mooy bi toq ci diggante TFM télévision Futur Média ak waa Marodi TV seen diggante ñoom ñaar jax na jax koo xamante ne bu ñu moytuwulee série bii di Pod et Marichou dootul daw ci télévision TFM ab xibaar bu naqari ci ñi nga xamante ne daanaka ñoom ñoo doon suivre série bii di Pod et Marichou ci télévision TFM mi nga xamante ne jamono ji ñu ngi lal ay pexe ngir daal di nëbb ñàkk a amub boobule ci seen seen télévision bi Ndiaga Ndour di directeuru télé boobu ñenn ñi di ko wooyee l'homme fort du groupe wala sax prince des nduureen mooy soppi yenn doxalin yi ak di def ay tëralin yu bees ngir fexe ba jëlee fa bépp production extérieure maanaam bépp film boo xamante ne nii defeewuñu ko foofu ca TFM waaye ca dëgg-dëgg bu ñu ko seetee ba ci biir moom Ndiaga dafa nekk rek di xeex télé bi di Marodi TV même mi nga xamante ne nii daanaka jamono ji am na lu ëpp un million abonné ci chaîne YouTube te daanaka sax Marodi moomu moom moo jox TFM téléfilm lu ëpp ci téléfilm yi nga xamante ne nii jamono jii moo leen may buzz te série téléfilm yooyu noonu Golden ci la bokk Pod et Marichou ci la bokk maîtresse d'un homme marié ci la bokk Adja ci la bokk ak yeneen ak yeneen loolee di firndeel lëkkaloo gu dëgër gu doxoon ci diggante TFM ak Mborodi waaye jamono jii de mënatuñu wax lu ni mel ndax li tubaab di woowee guerre froide moom lañu fa nemmeeku maanaam lambi la ku jóg daanu ku nekk di xeex sa moroom ci suuf li ko waral mooy Ndiaga Ndour di njaatigéb TFM dafa interne maanaam bépp téléfilm mbaa mbir moo xamante ne ñu ngi koy defee foofu la ci TFM loolee tax mu jeng lool ba nara nag nësaxal lépp luy production externe maanaam bépp euh, production boo xamante ne nii dafa jógee feneen dugg ci télé bi loolu la xelu ñeneen ñi mënta nangu ba tax ñaari kàngam yi jiite Mborodi TV ku ci mel ni Amadou Diagne ak El Hadj Oumar mi nga xamante ne moomu doon joué rôle pot ci série pot et Marichou nekk di wut ñoom itam seen mbiri bopp ci xalaat ak seen i kartan ngir taxawal ñoom itam seen plateforme bopp bu leen di mën a permettre ñuy diffise seeni i série bopp ñu leen di yëgal rek yéen ñi nga xam ni yéen a tàmm di seetaan seen série Pod et Marichou ci boobule télé muy TFM leen am benn mberteel bés bu ngeen déggee ne Bordeaux yi ak TFM daal seen diggante takk na donte yéene wuñu leen ko bu ñu fàtte mukk ne ci mbir moomu moomulee ñoom ñaan ñëpp ñu yëngatu dafa mel ni lambi golo moo fa xew maanaam comme ay jën ku mën sa morom daan te nag sax bul fàtte mukk olof njaay dafa wax ne alalu golo gënal itam du bañ naa la jërë ngeen jëf